Carol Mbaye commencé na Alisa kay fii rek kay fii bon c'est bon indi Nous vous remercions, nous vous remercions d'être venus. Oui. Nous remercions la presse nationale et internationale. Le maître, Vas-y. Hey. Eh. Je vous dis, je vous dis tout de suite euh, que l'audition s'est très bien déroulée. Dans de très bonnes conditions. Et euh, Monsieur Ousmane Sonko a été entendu pendant au moins trois tours d'horloge. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le doyen des juges. Il a, comme vous l'imaginez d'ailleurs, contesté les faits et il a démonté l'accusation. Il a fourni toutes les preuves de son innocence et cette audition était une audition classique. C'est tout à fait normal dans le cadre d'une procédure pénale Euh, qu'une personne soit entendue au fond après euh, qu'il aura été entendu dans le cadre de la première comparution. Donc cette audition était tout à fait normale et nous l'avions demandé depuis, depuis très longtemps, contrairement à une idée répandue, euh, c'est lui-même Sonko qui avait réclamé son audition. Mm -hmm. Donc ça s'est très bien passé. Euh, il a démonté l'accusation et il a fini d'admettre toutes les preuves, de les porter à l'attention du juge d'instruction que cette accusation ne repose sur absolument rien du tout. Mm-hmm. Il a donc contesté les faits. Et maintenant, nous allons continuer la procédure judiciaire euh, qui n'est pas, qui n'en est pas encore à son terme. Et c'est important de relever que le juge d'instruction n'a aucun moyen de renvoyer l'affaire en, en, jugement. Donc nous escomptons un non-lieu total par rapport à ces faits qui sont des inexistants, mm-hmm. qui ont été euh, la source d'un plan ourdi par des personnes tapées dans l'ombre yow ont voulu simplement éliminer un adversaire politique. Donc nous sommes fiers de notre client Ousmane Sonko qui s'est très bien défendu. Euh, li ñu mën a wax ci gàttal mooy audition bi euh, kontaan nañ ci parce que li nga xamante ni ñu ngi ko doon xaar suñu client yëpp wane na ko wane na fit wane na jom wane na fulla wane na fayda ba pare wane na que nit ku dëggu la liñ ko doon toppee yëpp. Euh, maanaam teggi na ko ba pare fekk na à la place li nga xamante ni day permettre juge bi mu xam ni ay pexe yoo xam ne dañ ko ko doon fexeel pour dugal ko ci ay mbir yoo xam ne moom defu donc euh, il été comme ni ma ko waxee ci nasaraan li mu wax yëpp leer na léegi fi mu nekk nii euh, lu ñuy xeex actuellement mooy mu am non-lieu parce que loolu rek moo fi mën a am dossier bi amul benn élément buy wane ay sàkku wala benn élément buy wane diggante góor a jigéen yoo xamante ne dañu sekk dara donc li muy wane yëpp mooy lépp lu nga xamante ni doyen da ko teg doyen des juges mooy day décharger Ousmane Sonko lépp lu ñëw rek day gën a décharger Ousmane Sonko donc fi mu nekk ni ñun bëgg nañ ci lool te tey aussi c'est un grand jour parce que jour la woon boo xamante ne Ousmane Sonko da doon jàkkaarloog juge bi te loo xamante ni da ko yàgg a sàkku nañ lu ne dégg nañ ni Ousmane Sonko euh, moom moom dafay daw justice wax nañ ko fi yàq nañ ko lu ne mais ñun comme suñu kàddu bariwut ni occasion la aussi ñu rétablir un certain nombre de choses maanaam wax ak opinion bi wax leen ni musul daw justice il a toujours day respecté la justice ba pare tamit également beneen affaire mooy euh, bi ñu ko bi ñu ko woowee tey mu waroon wax yëpp wax na ko wax na ko ci fulla wax na ko ci fayda te wane na li ko toppee ay fabrication la yoo xamante ni du dem donc lu ñuy lu ñuy demander actuellement li nga xamante ni moom la ñuy xaar ci doyen des juges mooy mu accordé ko non-lieu comme ça mbir mi jeex parce que amul benn élément boo xam. mais ana Ousmane Sonko mën nañ ci dugal Ousmane Sonko. ana Ousmane Sonko fi mu nekk nii ñibbi na këram. donc point de presse lañ doon def euh, jarul question loolu rek lañ doon leeral pour yéen yéen xam ko mën ko euh, jàllale opinion. merci beaucoup